yaa ngi doon wax stratégie politique u président Macky Sall mais foog nga sóoraale ne mënul doxal politique bu ànd ak loyauté ak attitude chevaleresque mënu ko xamu ko yaa ngi wax sànq euh, il en veut à ses anciens premiers ministres man dama mës a wax ne li li ma jaaxal ci góor gi mooy numéro 2 la bañ a gis bañ a dégg koy muy numéro 2 de ah, parti des têtes qui émergent quel est quel est le numéro 2 la l'APR Ah bon le numéro 2 de la dernière élection présidentielle euh, Idriss dindi na ko. dindi na fi premier ministre sax numéro 2 de l' exécutif. après ko. coono dab ak itam ah. war a campagne. mu daal di ko indiwaat. Mhm. loolu rek moom moo tax mu indiwaat ko. Mhm. ñàkk loyauté bi itam moo indi muy pré campagne te ñu tere ko. te muy pré-campagne ci naan waxuma distribuer xaalis loolu lu néew la ci. waaye déplacement yi dépense bi c'est le budget du Sénégal. Mm-hmm. loolu compétition loyale la. Mm-hmm. opposition mënut a yëngatu. Mm-hmm. mais Cap-Vert nii boo nekkee candidat président en exercice nga nekk candidat dangay ngay génn pale dugg sa oto bopp di campagne. mooy yoon loolu loolu mooy yoon. waaye jël alelu réew mi. jël oto réew jël essence réew di séddale di campagne pré campagne ci avant tout le monde indi parrainage loolu tam ci ci déloyauté indi parrainage ni ñu ko waxee ni nii la war a mel ci constitution bi mënoo ko jëf signature d'un électeur kenn du vérifier signature d'un électeur nga indi saisie électronique control électronique non certifié lu nekk mën ci génn cour de justice de la CEDEAO ne la dindi lii méngawul ak sa bloc constitutionnel nga bàyyi ko fa kon loolu ci la dëkk moo yàq senegal na ko ñëpp xam ndax nag senegal yàqu na kon ni ko Thierno waxee nañu fay daal war a defaraat war a taxawalaat senegal yàqu na ci homme politique yi amatuñu kaddu mm-hmm. dangay wax lii waxeet mm-hmm. sa yoon nekku ci kon loolu lu ñu war a jiital ci lu ne man 2018 li ma doon wax ci sama programme mooy nu ñu jiital homme politique yi di sàmm seen kaddu mu jaral leen lu ne wax naa dinaa jëf du jëf duma ma wax kabura maqtan inda allah an taqulu ma la tafaluna kooku alquran la loolu bu jàllee ba noppi Sénégal tey lan moo gën a metti ci askanu Sénégal booy taxawale programme noonu nga war a xalaatee dund bi. nit li muy jiital mooy war a war a lekk ba mën a. lekk ba suuf dund. waaw <laughs> d'accord. ana dund bi. Mm. d'accord. ça c'est le pire échec de Macky Sall. mi ngi jeexal mandat boo xam ne pouvoir d'achat boo seetee de dëkku nasaraan yi mais képp koo xam ne nekk nga président di ko jeexal foo xam ne pouvoir d'achat wàññeeku na doo doo toogaat da ngay dem sa yoon. donc il faut sauvegarder le pouvoir d'achat loolu jaar ci lan nañu ak mbéy ndax dund dañuy wax ceeb ceeb ceeb mais dugub bi dugub bi 800 francs na kilo amul faydaaluñu ko. Hmm. gerte plus de 1000 francs ñaar téeméer mu mu wees ko amul yàq nañu mbéyum ceeb mais mbéyum gerte.